yëgal ooteeb bi nga xam ne aadoo nañ di ko def wax at bu jot ci jëmmi jamono ci jamono ci jamono Cheikh Ibrahim ba léegi muy seet rek benn semaine boo xam ne semaine yi jàngat alxuraan la semaine ñaan la semaine yi jottaliku ci alxuraan ñi ko daan def ba léegi oote boobu lañuy ñuy beesalaat di oo mbooleem taalibe yi fu ñu mën a nekk ci turi xalifa bi ci nuyu imaam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé ñu ngi oo taalibe yi nañ ko aadoon di ko def ñu dajee àllarba bi ñëw lañ koy tàmbali buñ jullee fajar ci jumaa yi Medina Baye mottali ko àjjuma ci teewaayal xalifa cheikh mohammed El Mahi loolu nag dara taxu koo jóg lu may beesal kóllëre ak alquran beesal jokkoo ak alquran beesal ndénkaaney cheikh Ibrahim yi nga xam ne mu ngi sofu ci ndénkaane yonent bi sallallahu alayhi wasallam yi nga xam ne moo ñu bégal wax ci xadis ne aw nit duñ booloo ci néeg ci néeg yàlla yi di jàng téere bi yàlla bi di ko jàngat ci seen biir lu may dal gu tukkee ci yàlla wàcc na ci ñoom yërmaande yàlla muur na leen malaakaay yàlla yi wër na leen yàlla it tudd na leen ca ña nekk fa moom loolu yëpp liñ ci déggee mooy daje bu mel noonu daje la pour jaamu yàlla daje la pour dëgëral bu bi nga xam ne moo nekk suñ diggante ak yàlla tabaraka wa taala muy alquran bi nga xam ne moom la ñu yonent bi bàyyeel taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abadan kitaaballahi wa sunnati maa ngi leen bàyyee ñaar yoo xam ne feeg yéen a ngi ci jàpp du ngeen réer ba mukk muy téere bi yàlla bi muy suma sunna waaye dajee la pour gaarlu xéwal yàlla dajee la pour ñaan yàlla boo xam ne jullit du dëñ di ko soxla ci waxtu wu nekk rawatina ci waxtu bii ñu nekk ñaan yàlla pour lislaam jullit ñëpp ñaan yàlla pour Sénégal ci xaalam yëpp rawatina ci xaal yi nga xam ne nii ñu ngi ci toll fi mu ne yàlla defal ñu réew yi jàmm yàlla tim nangul ñu suñuy jàmm yàlla boole ñu wattu ñun ñëpp wattuñu ci lislaam wattuñu ci gëm yàlla daje boobu àllarba le lay commencé jeex ajjuma gannaaw bu jullee ajjuma ci teewaay ak xalifa Cheikh Mouhamadul Mahi ñu ngi wax taalibe yi comme niñ ko daan defee ñu mën a teew ñu teew ku am ngàntal teew it te amoo ngàntal daje jàng alxuraan ñu koy jàng ku nekk fa mu nekk ba yónnee sa lim waaye li gën a soxal paix bi mooy delluwaat takkoo takkoo ak buumi alquran takkoo ak dénkaane yàlla takkoo ak dénkaane yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi